yéen ñi ñuy topp ci alxadimiya tv ay waxtu yu néew des ñu àgg ci bisu màgg bu tedd di 18 safar ñu nekkal leen fii ci daaray kaamil yéen a ngi koy gis suñ ginnaaw muy bâtiment bu mag bii di daaray kaamil ñu tabaxoon ko ci ndigalu Serigne Abdoul Ahad mbake moom moo ko tabaxoon mu doonoon ñeenteelu xalif général yoonu murit di Serigne Abdoul Ahad Mbacke moo tabaxoon barab bi ñu tuddee ko Daaray Kamil leen ci mbind ku baax ki mel na ni fi lañ ko denc lu ci mel ni xasida yi ak alxuraan yi nga xamante ne nii ci la doon liggéeyale yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw bi ko suñ borom mayee mu moom alxuraan lim doon liggéeyale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay am ndaax mooy ay tagg ak fii nii lañ ko denc 7 tonnes 500 yi duñ def lu dul fas yéenee àgg ci biir woon leen ko waaye tamit mel na ni amaat na yeneen saal yu fi nekkaat ci biir lu ci mel ni képp ku bëgg a gëstu yoonu murit ci wàllum xam-xam boo ñëwee ci biir di nga fi fekk ay saal yoo xamante ni dinañ ko waajal ci làng yu wute lu ci mel ni arabe français anglais ba ci wolof sax desu ci ginnaaw duñ def lu dul fas yéenee dugg ci biir woon leen li am ci bâtiment bu mag bii ngeen gis sama ginnaaw muy daaray kaamil. ahoosu وإني أعيسى بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما هزمته وكل من هزمته سل وسلم وبارك هني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذه المكتوبة مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعل لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب حملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة ñu nekk fii di salle boo xamante ni daa nekk fii ci biir daaray kaamil ñu fiy teg lenneet ci mbind mag ñu baax ñi waaye lennet ci mbind yi nga xamante ne dafa aju ci lislaam waaye lennet ci mbind yi nga xamante ne ni ñi aju ci yoonu murit doon ay taalibi di ay borom xam-xam bind nañ ko seeni mbind fii lañ koy indi waaye képp koo xamante ne bëgg nga gëstu lu jëm ci wàllum xam-xam boo fi ñëwee di fi mën a agsi ngir amal fi sa gëstu ci wàllum xam-xam waaye rawatina ci yoonu murit day mel ni ubbil nañ ko buntu ñëpp élève arab mën na fee ñëw bu ñëwee am na téere yoo xamante ne dana ci mën a gëstu ci fànn wu mu soxla ci xam-xam waaye kiy jàng langue bi nga xamante ne tubaab la mbaa anglais mbaa beneen langue bu fi ñëwee tamit dana mën a amal gëstoom ci wàllum xam-xam lu aju ci mbirum addunaam waaye lu aju ci mbirum diine ki ko amal di Serigne Abdoul Ahad Mbacké loolee di wane ne Serigne Touba fonk gi fonkoon xam-xam rek loolee la njabootam di ko wéyalee ba ki ko fi taxawal di Serigne Abdoul Ahad Mbacké وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد سل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع سل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع سل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أهد سل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من هبد لطيف سل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف سل أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله والصحب خير سلامين ووضح لحبي hab li rasulillahi fi aqla ba tey fii ngeen di gis nekk ab saal bu nekk ci daaray kaamil ñu teg fi xasida ku baax ki Seexna Ahmad Bamba Xaadim Rasul muy liggéey bi mu doon liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay tagg yéen a ngi koy gis bibliothèque yëpp fees dell mel ni lu nuru ay armoire lépp ñu duy ko ay xasida mu doon ay am ndaax ay tagg yi ay diiwaan la yoo xam ne da koo jëmale ci alquranul karim waaye yenn yi doon ay diiwaan yoo xam ne da jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg am ci yoo xamante ne da ci sant suñu borom subhanahu wa taala comme ni mu ko diglee ñu koy waajal di bisub cant suñu borom muy 18 safar noonee tamit la bindee ay xasida yoo xam ne du lenn lu dul di sant suñu borom waaye tamit ku ko xam-xam ne fàttewul xam-xam bind na ay xasida yoo xamante ne jëm na ci xam-xam kon saal bi ku fi ñëw daal lépp loo bëgg a xam ci mbindum ku baax bi muy fànn yooyu ñu tudd boo fi ñëwee da nga ko fi mën a gis yenn diwaan yi ngeen di gis murid yi di ko jàng lu ci mel ni xasida ak muxaddamaatul amdaax xasida ak jëzbul xuluub mawaahibu naafia ak yeneen yu ñu xamul sax boo fi ñëwee di nga ko fi fekk للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه له وسل لمختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد سل وسلم سرمدا يا سمدي له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يسل حليما يا الله سل والتسلم كل هل على الذي كتابه خير الدهام إلى نبي الله نور الدهر سل وسلم كل شهر للمنتقى أوسل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري wa majlisi wa maskanihi wa birri